mais nag dañ la gis nga fës lool lool ci ki nga xamante ni moom mooy Wally ba premier albumam bi euh, euh, euh, ñu nga woon këram ba ba muy def présentation bi yaa nga fa woon bii aussi la même chose ay voyage yu bëri aussi dañuy gis ngay ànd ak moom tey ñu bëri naan si daal day liggéey fi nga xam ni moom mooy Faramareen musique loolu am na. ma mun naa ne Faramareen sama Faramareen la pourquoi je le dis parce que ñoom ñëpp dama leen bokk njaboote. et di ñoom ñëpp dama leen bokk njaboote Faramareen sama kër la awma ma fa benn sens interdit te it ki nga xamante ni c'est le patron mi Wally Balago sekk daf maa yëg ci ay projet am ci ay activité am euh, ba pare mu xam relation bi nga xamante ne ko siqoon naa ko ak papam ju baax ji muy coon Balago Seck man tey su ma ci taqee rëpp rek c'est parce que papa coono ko waral ndax ba dara dul dara papa dafa ma yàgg wax ay mbiru waale te loolu waali sax fekkewu ko mu nekk un artiste boo xamante ni que mi ngi ci carrière am mu may wax ne ma si daat dama am doom bii woy te dama bëgg ngeen jàppale ko ndax man yow laa fi am avant le décès de papa Euh, on a des relations particulières man ak Papa Thione dafa loo xam dañ koy dund man ak moom loolu yàlla dogal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana Papa Thione su ma ñëwee néegam la may dugal xam ni dugal la néegam loolu du ku ne moo koy def ci néegam nañu toog pendant ay trois heures de temps quatre heures de temps xam loo loolu day yàgg mun neen toog ci néeg ba yëg yëg sonn sa après jóg dugg dem ci studio ba yëpp mu nekk ay mbir yoo xamante ni que nit ki mu may woon boppam dama woon ay mbiram mais bu buñ daan toog tamit daan na ma wax ci waali ne dama am doom ji woy te dama bëgg ngeen jàppale ko ma ne ko ah Papa Thione ñun moom musique sénégalaise moo nu ñor donc li am solo mooy euh, ku ci nekk rek dinañ ca bay sa noir parce que loolu mooy sunu sunu devoir Wally nag dafa nekk un frère dama naa sax c'est un frère de valeur j'ai l'habitude de dire saa parce que moom moo ma wan valeur yooyu Euh, musique sénégalaise yaatu na ku ci nekk ak kilo la ci yët ku ci ne ak kala ca faale ku ci ne ak kala boole tamit ca boppam ndax lu muy def daf may xamal lu muy duggit boole ma ca xam nga nit bu la boolee si boppam faaw nga boole ko si sa bopp ba pare mu nekk engagement boo xamante ne que colère bu ma yàlla booleel ak papaam. Euh, tey doom ji aussi tamit ñoo continuer kóllëre googu donc loo suma collaboration ak Wally dafa nekk euh, lu ma neex parce que c'est un garson exceptionnel gentil humble et puis ku jox nit ñi cër respecté ma ma respecté ko euh, ay liggéey moo ciy boole te man musique sénégalaise moo ma ñor j'ai l'habitude de dire que ni man je travaille pour tous les artistes du Sénégal li ngeen may gën a gis ak Wally mu gën a am visibilité c'est parce que moo ma boole ci boppam li muy def boole ma ca li muy def ma nekk ca kooku c'est très normal mu nekk woykat ma nekk euh, un porteur de voix ngeen may gis ci kaay spectacle am parce que moo ma ciy boole tukki yóbbu ma donc man sama liggéey mooy non man artiste yaakaaruma moo am benn frustration parce que man lu ma defal Wally rek defal naa ko artiste Sénégal yi au contraire ñoom laa ko jëkk defal man servir naa artistes yu bëri yoo xamante ni Sénégal dama naan am na ñu bëri ñoo xamante ni que bu nu amee colère dëgg dëgg dëgg ñoom dina xam nan ñuy doxalee ak man ndax dama yàgg sonn ci ñoom man waaye defaluma ko dara <laughs> wala boo defalaguma ko dara boog. mais man li ma rendre service les artistes du Sénégal bëri na non je vais mais bëri na ku ci nekk rek relation bi nga am ak Sidath xam nga ko même bu ma limul wala ma tudd tur di nga xam yow artiste bi fan nga jaar ak Sidath Wally mooy ki moo mujjee taxaw di ko soutenir man Wally laa mujjee taxaw di ko jàppale mais man artiste Sénégal amul ku fi nekk. nga doon daanaan ci réew mi te jàpp ma si sa ay mbir à part ban artiste laa gën a jege dinaa wax benn affaire man j'ai pas l'habitude de fréquenter les artistes ñoom ñëpp samay waay nañu man dama nekk nit boo xamante ni que boo xam sama bopp du ñëw sa kër te woo ma fa du ma ñëw sa bis te invité woo ma fa du ma dugg tamit si sa ay mbir te boole woo ma ca dama nekk animateur bu xam sama bopp cest à man sobu ma sama liggéey laay respecté liggéeyal nañ nag ñoom ñëpp da A à Z amul xaar ma yàlla ñoom ñëpp lay teg ñoom ñëpp lay wax ñoom ñëpp lay jox seen valeur parce que loolu mooy sama liggéey liggéey boobu nag dama koy def ba mu mat sëkk. mais bu dee côté fréquentation euh, moi avec les artistes euh, du Sénégal euh, am naa ci ay waay mais on se fréquente pas. pas longtemps à la rajo en direct euh, parce que Bakane Seck jëri yëri kooku sama xarit la kooku moom mooy artiste bi nga xamante ni day nekk ba Europe. ba Japon ay 3 heures du matin 4 heures du matin dañuy waxtaan wi Bakane Seck jëri loolu moom je le je le souligne ici. y' pas longtemps moo def ce week la là grand théâtre bu nice bu exceptionnel sargal euh, ki nga xamante ni moo di le communi le président de tous les communicateurs traditionnels Alaaji Mansour Mbaye mais euh, Bakane moom sama sama nit la ça waaw producteur bu dal sama kaw ndax Wally ah peut-être xëy na li Wally def rek nga deful pour man parce que un producteur il a besoin des des animateurs il a besoin des communicateurs xam nga nu euh, nous sommes dans un pays boo xamante ni que dañu bëgg détail producteur bi mën na laa wax lu ko neex mais moom bu toogee xam na ni moom la muy liggéey war na woo si Sidaat war na déplacé wu ñëw togg Sidaat ndax c'est un producteur man producteur bu yaakaar na ma lay topp da ngay nax sa bopp ndax man man du ma topp kenn <laughs> ma xaw a kan lay topp Cheikhul Khadim man topp ma kenn fëgguma tamit kenn sa kër wala moo wala ne la damaa soxla wala man la abal ma wala man la may ma man boo nekkee un producteur tu as intérêt à communiquer tu as intérêt à faire beaucoup de choses avec les porteurs de voix mais tu peux pas rester dans ton coin nga bëgg lépp di mat c'est impossible kay liggéey nag nu am ay relation boo gisee euh, nga gis euh, liggéey ma ciy jàpp nga ciy mer loolu pour man defoo sa wareef si parce que deful wareefam producteur dafa war a jóg di communiquer di xool nan la liggéeyam di évoluer mu waxtaan ci ak ñun loolu mooy dëgg y'a combien d'animateurs dans ce pays bëri na waaw léegi ci peux pas ne croiser les bras di xaar ñu lay fëgg si wala di la woo wala di la topp man du topp kenn une fierté totale sur ce garçon parce qu'il a osé. Je peux dire que plus de 12 ans ou bien 13 ans, Wally n'existait pas. Et il y avait énormément d'artistes dans ce pays. Alors, tey boo xoolee tey ci génération bi ñu nekk Wally il a osé dafa wane boppam ñeme li muy def il met les moyens qu'il faut Euh, ba pare nekk un garçon généreux xam lan mooy àqu liggéey mu jox la ko xam nit ku ne de quoi il est capable ràññee ay nitam xàmmee ay nitam ku ci nekk la mu soxla mu woo wax ca ak yow mais kooku <laughs> da nga koy jàppale te artiste bu ko defee nu jàppale la mooy ce que je dis Wally c'est une fierté au Sénégal c'est une fierté en Afrique parce que il a fait un album exceptionnel l'album I Wanna Be Free un album de vingt titres qui cartonne énormément fort sur le plan international te nag mu am audience mu ubbiwaat yeneen bunt yoo xamante ni que fii ci kanam da ngeen dëggaat yeneen projet yoo xamante ni que album bi moo ko décroché et puis c'est ça qui est important Wally c'est un Sénégalais du Gambien du du du Mauritanien du Ivoirien ah du c'est un Sénégalais et fier de l'être mais tey fu mu dem rek drapeau Sénégal lay yóbbu. Sidi Diop yaa ngi wax xale bu am talent je l'ai invité ya y a pas longtemps il a fait euh, tamit euh, un concert euh, à Wakam Bercy Wakam mais Sidi Diop. a fait bouger kam mu toj ko cest à xale boo am talent xale boo am avenir xale boo xam ne dañoo am ci moom yaakaar et je sais que mais loolu mooy affaire bi nag gis nga bu nu amee Wally am ay Sidi Diop am yeneen artistes encore yoo xamante ni que c'est-à-dire dañuy oser liggéey sur le plan international mais loolu bagage gënu koo rëy. te Sidi Diop c'est une fierté au Sénégal c'est un garçon qui a énormément de talent il est talentueux di Diop il chante bien et puis il a son propre style xale bu ñeme la xale bu bëgg tamit li muy def la. ak Pape daan liggéey moom biir génération consciente. wala suba teel mais gisatuñu la nga fës ci tamit toxam loolu lan la la mooy problème. non y aucun problème <laughs> Pape Diouf ba mujjee def album moom écoutez. man maa ko présenté en exclusivité man maa présenté Pape Diouf en exclusivité album écouté Pape Diouf am neen relation yu nice man ak moom et quand je relation yu nice yàgg na peut-être xëy na activité am léegi moo bëri ba nga xam peut-être amatul yenn jot yi nañ daan gisee avant mënatuñ ko gisee léegi Euh, liggéey bi tamit la même chose mu jàpp ma. bon il faut euh, lui demander ça pas moi. <laughs> ni yàgg ngeen ànd jiitu sax li nga wax nii euh, maanaam gisatuñ la bu baax wala gisuñu la moom mu xëcc la ci boppam en tant que un animateur un ami lan moo tax loolu. xam nga bañ nga da nga ni gisatuñ la mu xëcc la ci boppam moo tax il faut aller lui demander ça. Pape Diouf fi ma jaar ak moom est-ce que jaar naa fa sax ak artistes yi Pape Diouf ma jaar ak moom dama naan jaaruma fa ak euh, benn artiste li ma naan tey ku ma gis ma ànd waale nga mer defal naa la loo xamante ne lu raw li may defal xaw ma ndax dégg nga wax jooju parce que dafa am fu ma jaar ak les artistes du Sénégal ku ci nekk rek ak relation bu ma amoon ak yow mais man maa dul nit boo xamante ne dama lay topp ma du ma toppaate du ma toppee man da nga may yëg ma yëg la yëgoo ma ma xam sama bopp je suis comme ça je suis comme ça parce que tamit dama doon li ma doon yàlla def ma ko avant ñu bëri di fi xew man ba may siiw du tey kon du tey lay toog di def yu doyee di non non artiste bu ne jaar na fi ma soutenir sa carrière yokk sa audimat yokk say say fans di la promouvoir di def ci yow yu bëri lu naan lu sotti am boroom lu sotti am boroom mais li am solo kóllëre dafa am solo mooy sa nitu démb waroo ko fàtte waroo dugg ci dara nanga daan def démb dafa too ko am na nooy def nekk nit ki day croiser les bras di la seetaan rek bon xaw ma lan la la l'habitude d'entendre ñu neen artiste ak mbër nu baal maa ñu ne amuñu colère bëri na artistes yoo xamante ni que da ngay sonn ci ñoom daj ci ñoom lu ne mais duñu am colère wala soit li ku démb et que loolu nag c'est désolant quoi au fait c'est désolant